tuuti na waaye tàngaat yaa ngi ca biir Fadam. dafa mel ni Papa Bari Bari dafa ko bëgg a songale. da ko bëgg a songale waaw. waaw dafa ko bëgg a songale. waaye bébé Modou bañ na. ndeysaan. waa <laughs> jaxabal. waaw jaxabal na ko laay laa illallah daan na ko leer na. daan na ko xale baa boobu ndeysaan la. ko ndeysaan ngi daw ci kaw xale waaye joonaa bi joonaa bi maa ngi lay nuyu Modou maa ngi lay fay bu baax a baax a baax maa ngi lay ma bàyyi la ba sant yàlla ñu julli seenante bi di gësant suñu ñaari waay ñaa sama baax fa mu tëdd yàlla gën a fi waaw ah, di santaat waa Thiaré ñëpp di santaat waa Thiaré géej ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp waaw di ñaanal Père Alla fa mu tëdd yàlla nga fi mu di ko ñaanal bu baax a baax a baax a baax fa mu a ko fi mu jugee ndeysaan waaw Jona sa sa combat bi xam nga li nga bëre waaw li ma bëre moom nekkul bu dee si yéen day doon dara si yéen mais bu dee maa ñëw HBK ne ma daan nga jël bu rëy mooy borom mbot mi waaw mbot mi mbot mi dëgg la jël bu rëy waxoon naa la ko signature ba waaw ne woon naa la kii nekkul maag moom hmm. daa ma revanche waroon jëli rek ok sama ko may waroon daan di nga ñaanal ndax instant ma ngay Espagne di nga ñaanal li wuti foofu noonu yàlla na ko am a ah, di santaat ñëw baax a baax a baax xamal ne loolu la làmb la rek ndeysaan bi bu mooy sama cinquième combat. ñaata victoire quatre victoire. quatre victoire benn défaite. benn benn machine nul. benn machine nul. maa ngi jàmbaar la yaa ngi ci ban écurie. écurie Thiaroye. écurie Thiaroye naka foofu nag écurie ba. waaw mu ngi dox. ndeysaan mbëri am nañ combat di leen ñaanal. ñoom ñëpp mbëri am nañ combat. waaw ku ñoom ñëpp may leen ndam. macha allah yéen ñoom ñëpp